nga gis nga Ibra Faal ngi ñuy faale te xam ni kenn daawu ko xëy di faale ak ibre Faati mi le kenn dul fàtte te xam ni dee saa na ko dox di fàtte ak Madu Ndumbe mi le kenn dul yàbbi te xam ni kenn daawu ko sax ba yàbbi ak doomi Anta ji mel ni jant te xam ni kat mi ngi meloon ni bant aadama gi yaa ko defoonu sàll yal na ko yàlla dolli may gu sell Masamba Joobi ta ngi dee fi joobe yaa ko may may ku ko dee fi joobe asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit mbokki taalibe yi euh, ni ñu ko waxee tey jii ñi nga ànd ak yéen ànd ak groupe Istikhama teew ci barab bu sell bii di Xuru mu mel ne tey ji àllarba di juróom-ñetti fan ci saxbaan ñu teew ci ëtt pàkk bu sel bii waaye teew nag ci jëmm ju sell yoo xamante ni kenn dutu ko nattal muy sëriñ Abdou Salaam mu mel ne sëriñ Abdou Salaam kenn la ci njabootu seexul xaddim waaye kenn la koo xam ne fii ñu ko ber tey jii sëriñ bi moo digle woon tey ji ñu dël ko fii ngir xam ne moom kat mënees na ko ber ndax ku man boppam la loolu nag bu ñu fi ñëwee di bisu ziar di bisu fàttaliku danañ wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci barab bi ñu fekk fi jëwriñ joo xam ne kenn du ko présenté muy sëriñ Mouride mbay ñu fas yéene euh, dëkk ko suñ micro mu leeral ñu tëralinu barab bi ak jëmm ji tëdd fii mooy kan ak bis bi nan lañ ko waajalee bisimilah sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëriñ Sow bu ñu ngi lay nuyu di ziare waa Istikhama TV di leen sant bu baax a baax seen taxawaay ngir liggéey bi yàgg nañ koo wane yàgg nañ ko ànd ak ñoom fi nga ñu fekk nag mooy barabu sëñ Abdou Salaam moom Serigne Touba Serigne Abdou Salaam nag boo gisee mu beru fii lenn ci njaboot ak sëriñ Touba gi ci beru ca dëkk ba daanaka lu mat euh, fukk ci ñoom beru fee ànd moom mu beru fii loolu ci ndigalal sëñ Touba la dégg naa sëñ Touba moo ne woon nañ ko ber ndax mën na boppam euh, ginnaaw nag bu ñuy fàttaliku njabootam gi di leen ñaanal ñu nag suñu borom baaxee ñu ñu ñëw fii féeteek moom saa bu bis bi ñëwee ñu fi eh, ànd ak moom di ko ñaanal di fi jàng alxuraan ak xaside mbokki taalibe yi ñu xamanteel yépp ñu ñëw ànd ak ñoom di ñaanal sëñ Abdou Salaam di ñaanal njabootu sëriñ Touba gi waaye di di di ci sof sëriñ Mbay Jaxate mi nga xamante ne bii moo leen doon wéttali di borom barab bii mu mel ne tamit liggéey bi moom niñ ko xamee rek euh, dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ndax biñ koy door booba néewoon na lool ku ne xam na ne kër gi jàkkaarloog barab bi kër Baye Moustapha Gadiaga la bis la ñuy ñëw di fi ziar rek ca boobu ci ñetti nit lañ tolloon bi ñu ziaree fii ziare ca biir dëkk ba bi ñëwaatee nag ñu ne ñunkat war nañoo mën a toog fii dundal fi bis bi ci alxuraan ak xasida ak i bernde loolu mooy dox di dox ba tey jii ñu yaatal ko ba fi mu toll nii saa bis bi ñëwatee mbokki jullit ak mbokki taalib yëpp dañ fiy maase yendu fi di jàng alxuraan di jàng xasida bis bi tamit danañ ko waajal ci njàngam alxuraan ndax ren Euh, daara yu bari wax nañ leen ko am na daara yoo xam ne juróom-benn kaamil lañ jàng yi ñii juróom-ñeenti kaamil léegi am na ku téléphoné léegi ne jàng na juróom-ñeenti kaamil ci daaraam kon loolu rek mu wéy ne njaboot ak Serigne Touba gi di leen fàttaliku di leen ñaanal loolu fi mu ne ci liggéeyam Serigne Touba bi la bokk moo waraloon ñu ànd ak bokki taalibe yi waaye kit ànd koog waa kër Serigne Moustapha Gadiaga ngi ñoo ngi ñaanal Serigne Moustapha Gadiaga suñu borom yokk ay leeram ndax moom dafa wàcc liggéey bi ñoo ko daa ànd ak bokk yi nga xamante ne bii bis bi fu mu fu mu yegg rek euh, seen Pastef moo ko fa yeggale ndax saa bu jotee kenn du soññ kenn ñun ñëpp dañuy dajaloo rek ñii ne ci xasida yi dégg nga xasida yi ñii ne ci alxuraan ji bu waxtu bernde jotee mu bernde loolu rek mooy li nga xamante ne bii moom moo ñu fi dajal. waaw mu mel ne it niñ ko defee niñ ko defee ci Murit Mbay noonu lañ fa yéenee ànd ak ki nga xamante nii mooy sëñ Ousseynou mi nga xam ne ku ne xam ne ko ci xasida yi mu doon jëwriñ joo xam ne ci wàllu xasida yi. Euh, ñi koy teewlu ñëpp dañuy nam ak gis jëmmam euh, taataanaat lenn ci ay xasida yoo xam ne dana ko barkeeluwaat ngir jëmm ji nga xam ne moom mooy barab bi ñu nekk muy sëñ Abdou Salaam te mu doon bokk ci jëriñ yi waajal liggéey bi fii ñu ànd kook ñoom kon defe naa dañ koy jox rek mu indi ñu lenn ci ay tagg ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi way na ko bu ko defee loolu ñu mën ko dégtal mbokki taalibe yi alif laam miim innama sabru wala tulaloo allahu min kulli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 mu doon koo xam ne moom it mi ngi fii ci penc mi waaye njabootu sëriñ bi yëpp it fi ñu leen boole tënk leen fa ñi ngi fii incha allahu taala ñu wan leen tamit barab bi nga xam ne moom lañ duppee néegub soxna jaara mu doon néeg boo xam ne daana fa ne loolu lépp ñu ànd ko ak yéen wan leen jumaa ji ak lépp loo xam ne aju na ci wàllu ziyaar yi noonu it la ñuy fas yéene ànd ak yéen ci ki nga xam ne moom moo fi nekkal sëriñ Ababacar Jaxate di sëñ Bay Jaxate di ab xalifaam moom it dana leen ko wan wan leen ziyaar yi wan leen li ci aju wal wan leen bis bi nga xam ne sëriñ Bay Jaxate ku ne xam na ne kenn la ci njabootu sëriñ bi waaye kenn la ci yoonu murit bis bi dañ ko ciy fàttaliku mu doon ak màggal goo xam ne umma islam bépp fiy daje loolu it danañ ko ànd ak yéen ci wàccaay wi ci lépp lu ci aju kon groupe Istikhama da leen di jox dig daje ànd ak yéen ci lépp lu aju ci wàllu ziyaar yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bu sell bii di Xuru Mbàkke àllarba juróom-ñetti fan ci Saxbaan ñu leen di wax dig ñu leen jox dig daje dina wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu musal ma nag ci yow mi gën lu dul yow ma nag yow mi gën naa la yow naa la xam lu yow naa na yow nga ne mbokk yi kon yéen a ngi ànd ak groupe istixaama ci bis bi nga xam ne bisu fàttaliku la di bisub ñaan waaye di bis boo xamante ni umma islam bi yëpp dañ fiy daje rawatina yoonu murit di bis boo xamante ni bisub bisub tàkk sàkku njariñ la waaye di bisub tuyaaba mbokk yi nag ñu ngi fii ci ni leen ko waxee woon ci wàllu ziar yi euh, wan nañ leen ziar yi nga xam ne jëmm yu sell yi nga xam ne nekk nañ fi di njabootu sëriñ bi wan nañ leen ko wan leen barab yi nga xamante ni nii yëpp ay barabu ziar la waaye ci noonu it la ñuy feggoog joo xam ne dafa bokk ci comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu liggéey bi euh, bu ko defee ñu dañ ko bëgg a dékkaat suñu micro mu leeral ñu lenn ci taarixu Xuru Mbàkke ak jëmm ji nga xam ne muy sëñ Ababacar Jaxate nga xam ne siiw na ci yoonu murit lenn rek ci ay fàttaliku su ko defee loolu lépp ñu mën koo boole di tël ko ñi nga xam ne nekk nañ fu sori te bëgg a xam cosaanu Xuru Mbàkke tar Jaxate kon di kenn ci njaboot gi moom lañu fa yéene àndal mu indi ñu lenn ci taarix Xuru Mbàkke ak jëmm ju tedd ji nga xam ne di sëñ Ababacar Jaxate loo xam ne dinañ ko mën a dolli ko kon sëñ Maxtaar bisimilah. Ah, jërëjëf sëñ bi ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu waa groupe Istikhama yëpp di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ne Eh, yéen a ngi koy amal eh, jërëjëf comme ni nga ma ko laaje xam naa cosaanul Xuru Mbàkke ak loolu dana xaw yaatu lool waaye xëy na ñu tënk ko rek ndax li waral cosaan li ku nekk xam na ne Mamor Anta Salim moo fi njëkkoon a nekk ak soxna si waaye itam gannaaw bi nu fi jógee sëriñ bi ci gàttal rek xam naa dañ koy tënk sëriñ bi eh, rakkam muy caatu soxna jaara dañu ko fee denc muy sëñ Abibullahi mooy barab yooyu ngeen doon siyaara léegi Euh, kooku nag mooy cosaanu li waral sëñ Touba yebal fi sëñ Mbaye Jaxate ndax sëñ Touba dafa wax ne bi mu nekkee ci tukki bi fu mu toll ci tukki bi da ko doon feeñu di ko laaj wéttal moom sëñ Abibulaay euh, naan ko nii nga ma bàyyee ma wéet bu ma la mujjoon gannaaw duma la ko def moo tax sëñ bi bi mu ñibbisee mu wut lu ñu yees lu barab ba euh, ci la taamoo sëriñ bay Jaxate yabal ko fa ne ko demal nga wéttilil ma Abibulaahi moomu loolu mooy cosaanul xurumbàkke Uh, soxna sëriñ Mamour Anta Sali moo fi njëkkoon a nekk gannaaw bi mu fi jógee doomam jooj di caatu soxna jaara làqoo fi ñu denc ko fi doomam jooju biñ ko fi dencee gannaaw bi sëñ bi demee ci tukki bi ba ba dellu si la woolu sëriñ Bay mu ñëw mu ne ko fu ma toll ci tukki bi daf ma fa daan feeñu di ma laaj wéttal naa ma nii nga ma def nii nga ma bàyyi ma wéet ma la mujjoon gannaaw du la ko def looloo tax sëriñ bi yebal fi sëriñ Bay jaxate mu sanc si dëkk bi di xurumbàkke ci la ko sànce euh, nga xam ne sëriñ bi diir bi mu nekk njaareem wax nañ ne lu ëpp ci doomam yi làqu fii lañ leen indi muy xurumbàkke nga xam ne fukki doomam ak benn mi ngi fi ñu denc mooy barab yooyu nga xam ne siyaare ngeen ko léegi loolu yaakaar loo xam ne bëriwut ci dëkk yu mu am kenn moom lañ nale booy jéggi raay ba mooy sëriñ Abdou Salaam moom foofu lañ ko denc nga xam ne kon fukki doomi sëriñ Touba ak benn moo fi nekk sëriñ Baye Jaxate mi nga xam ne moom moom moom la sëriñ Touba dénkoon dëkk bi yebal ko mu sanjoon ko itam fii lañ ko dent denc muy sëriñ Baye Jaxate moom mi ngi fii ñu denc ko fii ci Xuru Mbàkke fee ñu ko denc nee nag euh, sëriñ Touba moo ko joxoon ndigal pour ñu denc ko bu làq ko ndax ku nekk xam ne ne sëriñ Touba 1918 euh, la yebal sëriñ Baye Jaxate mu sanc Xuru Mbàkke loolu nag daa méngoog ren mu am téeméeri at moo tax màggal gi euh, euh, taw feexe ndax ba mu euh, ba mu ko sancee nag ba ca déwén sa la ko sëñ Touba seet si fii 1919 ba ca la ko seet si wax nañ ne jullee na fi tisbaar ak taakusaan fii ñu denc sëñ Baye moo moo ko ko rëddal ne ko sëñ Baye barab baa ngi moo tax sëñ Baye defarlu na ab ab ab ab dëkkuwaayam ñetti fan doora a door wuy ji suñ borom defarlu na ko ñetti fan nga xam sëñ Touba moo ko ko rëddaloon ne ko sëñ Baye sa barab a ngi moo tax mu defarlu foofu nga xam ne mooy dëkkuwaay waayeem defarlu na ko ñetti fan door a làqu nga xam ñi ko doon defar ñi ngi doon defar waaye yéemu xamuñ lu war a xew ñenn ñi seen xew seen xel xaw na koo jëli ñuy gas di jooy ak ay lu ne ñu def ko waaye euh, loolu daal mooy mooy li nga xam ne mm, moo moo moo moo am ci loolu euh, dëkk bi di Xuru Mbàkke nag euh, day dëkk boo xam ne dafa làmboo njariñ lu bëree bëri nee naa lim nekk bëri na histoire yu bëree bëri yoo xam ne da nga koy dégg fii la xewe muy téye sàkketu soxna jaara woowu fii la xewe ak yeneen ak yeneen mbir yoo xam ne yéeme mooy euh, yaakaar naa wax sëñ Fallou ja rek ndax bari na nit ku koy romb di jóge Touba di dem njaareem ak ñëw boo ne ko xurumbaake mu ne la dama koy dégg rek waaye mosuma fee ñëw euh, kon day delluwaat ca waxi sëñ Fallou jooje mu ne woon dafa mel ne gaal gun muur la ku amul muur doo fi ñëw mu mel ne sëñ bi da koo denc ba noppi xaw a am lum lum ci làq ndax sëñ sëñ bay jaxat ci boppam it da koo ñaanoon sëñ Touba dana ko tuubaa njariñ la fa am tàbbal ko faaw ci nun te def ñu nag ñun ñuy tuubaa gu rëy gu ne xiim kon kon loolu daa daa mel ni <laughs> day day lu yéeme mu mel ne kon daal li muy làmmoo làmmoo njariñ lépp daa mel ñoom dañ cee narut mu siiw ndax wax nañ ne armeel yi kañ fa njëkk a bi ñu koy gasee ba di ko waajal ba ñu yónnee sëñ bi sëñ bi dafa tibb ci loxaam di ñaan suuf si ba saak mu tegaat ko daan ne dellu ne ko nañ ko denc ndax foofu malaaka yi mbugale ci bàmmeel xamuñu ko sëñ Soin bu mbaake wax ne dëkk bo nee na siyaara na ci barab bi bay génn ci barab bi sëñ Abib bu jëm ci sëñ Mbay nee na lu toll mel ne picc toll ci noppam ne ko barab bii lu faay ñaan ñu may la ko lu faay jéggalu ñu jéggal ko kon mu mel ne barab bu taw feexe la barab bu taw feexe la Xuru Mbàkke daal moom jàpp naa ne ku yàlla def nga ñëw fi war ngaa santaat suñu borom bu baax a baax ndax nit bëgg na fee ñëw di ko romb di dem ak a ñëw am ak waruwaay am lu mu fi ñëwee am lépp. di wër dëkki sëñ Tuubaa di xenc fu nekk waaye mënuñu fee ñëw loolu nag kiimaan dëgg la li ma lay wax nii lu leer la bari waa na dëkk yu nit ñiy dem ak di ko rang loo xam ne li ne fii li ne fii ci mbir nekkul foofa kon nag ku yàlla dimbali defal la tawféex yi nga ñëw fii war ngaa sant suñu borom bu baax a baax ndax dafa bokk ci denc sëñ bi xëy na ñim nar a dimbali dëgg dëgg ñooy am tawféex yi ñëw fi loolu moom moom moom muy li muy li yéeme sëñ Baye ci boppam itam maanaam comme ni ma la ko waxee doon ku sëñ Tuubaa euh, doon ku doyoon sëñ Tuubaa ci lu ne ndax koo xam ne nit ñëw na sëñ bi ci moom ba tàyyi jokk sëñ bi mu ne la sëriñ bay laa la booleel boo làqee ngërëmam am nga sama ngërëm te eh, te xam nga loolu koo doyloo dem ba ñu bare bari mu mu joxoon ko sëñ Bay ngir mu di leen tarbiya ba ci sëriñ Basiiru ku ne xam na ne sëñ Bay jaar na ci ci njàngum arxuraanam muy lu yéeme. waaw kon fi may daaneel samay kàddu rek mooy comme bis bi sëñ Bay dafa waxoon ne maanaam comme ci ci ci siyaar bi rek laay wax dana woon képp ku seqib jéego bi jëme ci man ngir bëgg a gis saa jëmm ji ak bëgg a gis samay bayit na seebulu ceebay nee la ki ngërëm ak wërsëg ak mucc ak ndam ak barke ak wéru yaram ay dal na nag kuy jombulu ku jombaloo siyaare nit doo gis mu am la muy mébét bul jombaloo siyaare nit siyaare day taxafulu te bul siyaare ndara ñaar koo xam ne kii dana la waar ngay waaru mbaa nga di ko waar muy waaru lii rek solo mu ne ndegam gisuloo nag ñi la ñaar jekkil sa kër tey waar waar sa bopp moo gën jóg di waar aw nit ñi naa yaa am solo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ñoo ngi leen sant bu baax a baax te bañ a wax dara ni xiim tabe mu ca njariñ fa wasikoom sëriñ bi gëm nga maye gëm am nga ndamit te maye ndam yaa may gëm ndam ku ko am yaa sedd xol serali xol yaa nga nu yeenu biir nun ñëpp laaye nga biir yaa mat biti mat ci biir nongoogu nun ñëpp yoral sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ku way ci yow mucc am mboolem mébét yaa asal